Bienvenue, c'est Imson. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. na ngeen def tey moom maa ngi leen di nuyu di leen fay dañoo am kontante dañuy ñaan yàlla si barke salaatul fatiha yaa barke salaatul fatiha yàlla nañu yàlla may ndam ren jii ñu am ku ñu ñoom ñu ren yaa barke salaatul ba ke pété laa ma ko def pété moo may may Yacine Ndiaye sama caa sama nijaay la Bienvenue, c'est Imson. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.